Boca and 3 comme ñu ngi leen nuyu di leen dalalaat topp bi ngeen ñu topp gis ngeen ni dañoo nekk en fan yëpp xam ne loolu li ko waral mooy jàngoro ji di coronavirus ndax jamono ji toog sa kër moom mooy aar sa bopp ci li xam ne moom mooy bi di coronavirus aaral la ñi nga xam ne ñoom nga nekkal dañuy ñëw dëgtale leen li nga xam ne moom ñu daal koy dooree ak point bu ministère de la santé xam ngeen ni bis bu nekk dinañ ko amal fële nga xam ne moom mooy màkkaan bu jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér gu yaram tey nag ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay annoncé 66 nouveaux cas ci coronavirus 66 personnes yoo xam ne dooleeku nañ ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ci bi 66 yi nag 61 ci ñoom di ay cas contact maanaam dañoo jëflante ak ñu am coronavirus ñu daal di leen di topp yoo xam ne ay cas communautaire lañ cas communautaire yi nag ni ñu ko répartir ñaari ñi ngi nekk fële nga xam moom mooy Touba kenn ki Mbacké kenn ki fële ca Medina keneen ki ci des fële nga xam ne moom mooy Pout noonu la Abdoulaye Diouf Sarr daal di li nga xam ne moom mooy cas communautaire yi daal dina annoncé cinq patients yoo xam ne daal dinañu wér war a dellu fële nga xam ne moom mooy seen njaboot daal dinay wax ne tamit am na benn kaa boo xam ne cas bu grave la maanaam état bi mu nekk dafa xaw a metti loolu loolu nekk point bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr def na ko ci li nga xam ne moom mooy Pout fii ci Sénégal nag ñi ngi ñuy xamal ni daal dinañu enregistré seen septième cas de décès lié ci li nga xam ne moom mooy feebar bi di coronavirus juróom-ñaareelu personne bi nga xam ne daal dinay ñàkk bakkanam ci ci yi nga xam ne ñi ngi fay interné ñi nga ko noonu depuis le 2 mars ak tey Sénégal daal dinay enregistré 7 cas de décès maanaam juróom-ñaari nit ñoo xam ne génn nañ àdduna ci li nga xam ne moom mooy coronavirus toujours lu jëm ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus xam ngeen ni feebar bi dafay laaj li nga xam ne moom mooy raxas ay loxo gel boobu nag dafay daal désinfecté li nga xam ne moom mooy seen loxo waaye comme lu ñuy wax tout excès est ki nga xam ne moom mooy docteur Ibrahima Ndiaye nekk dermatologue mi ngi lancé alerte ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñu bañ a ci li nga xam ne moom mooy gel bi parce que mën na ay ay effets secondaires effets yi nag ci li mu wax nee mën na diminuer li nga xam ne moom euh, li nga xam ne moom mooy ay fausse couche mën na aussi occasionner li nga xam ne moom mooy ay cancer wala obésité loolu nag nekk loo xam ne ki nga xam ne moom mooy docteur Ibrahima Ndiaye moom moo ko daal di lancé benn alerte a def li nga xam ne moom mooy gel hydroalcoolique yi. ñu wax ci wax ci weeru koor bi nga xam ne dafay tombé ak li xam ne moom mooy état d'urgence couvre-feu daal di am fi moom mooy Sénégal ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba jiite AIS moom daal di nay addu ci mbir mi moom daal di nay ni ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall waroon na jël ay mesures ci li nga xam xam ni moom mooy weeru koor bi parce que li nga xam ni moom mooy heure couvre bi moom jàpp ni heure bi dafa xaw a gàtt ci diggante ñi nga xam ne heure bi nga xam ne ci la ñuy ndogu ak heure bi nga xam ne dañu koy tere nit ñi génn loolu moo tax moom mi ngi ñaan président Macky Sall mu daal di bi nga xam ne moom mooy heure couvre-feu bi daal di koy yokkal nit ñi ngir ñu mën a gën a euh, am liberté ci li nga xam ni moom mooy weeru koor bi nga xam ne ci la ñuy dugg nii kàddu yi nag ñoo tukkee ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Khadim Mbacke Serigne Cheikh Mbacke Khadim Awa ba nekk njiitu AES mu koy jëmale ci couvre bi nga xam ne dafay tombé ak li nga xam ne moom mooy weeru koor gi ñu daal di wax ci bi nga xam ne moom moo liyee woon xale bu jigéen bi di Dieyna ak directeur bu ISEC di Mamadou Diop Mamadou Diop nag ñi ngi ko jàpp fa li nga xam ne moom mooy prison li tax ñu jàpp ko nag mooy dañ ko téye pour abus abus sur mineur maanaam dafa yegg ci xale boo xam ne amul 18 ans loolu tax ba ñu téye ko fa li nga xam ne moom mooy ci prison bi ki nga xam ne nag moom mooy Mamadou Diop ginnaaw bi Dieyna amee doom daf ko daal di reconnaître li nga xam ne moom mooy paternité bi daal di nangu ne moom moo jur doom ji ba daal di koy ngénte tuddee ko Seydina Fall alias Bougazelli waaye loolu taxul ba ñu daal koy nangul li nga xam ni moom demande de liberté provisoire bi mu dugaloon ñi ngi ñuy xamal ni demande de liberté provisoire boobu ki nga xam ne moom juge bi dafay xaar li nga xam ne moom mooy procès li nga xam ne moom prison bu rëbës ñu daal wax ci leneen wax ci ki nga xam ni moom pot ñu xam ko fa li nga xam ne moom pot et xam ngeen ni jamonoy couvre célébrité yi dañuy daal di def li nga xam ne moom mooy ay live chaque guddi ngir wéttali seen fan yi ci heure couvre-feu bi ki nga xam ne moom mooy Pod moom live ci bi mu ngi ciy wax ñii di ko critiquer bi mi ngi invité benn nit muy won ñi nga xam ne ñoom ñooy followers yi nan la ñuy li nga xam ne moom mooy préservatif ñu bëri jàpp ni loolu dafa dëppawul ak li nga xam ne moom mooy suñu mës ba tax ñu bëri di ko critiquer fi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi ñu jeexalee ci mariage mariage yu ki nga xam xamante ni moom mooy sëriñ Axma Mbacke bu sëriñ Moutala bu sëriñ Touba ki nga xam ne moom mooy sëriñ Axma Mbacke nag ñi ngi ñuy ki nga xam ni bu moom mooy Almadi daal di ñuy xamal ni tamit ci information koy may 5 millions comme premier sëriñ Axma ñu koy ñaanal heure ménage yàlla may leen njaboot gu barkeel voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci information information yi fi jot a xew li ci gën a fës di feebar bi nga xam ni moom mooy coronavirus ñu doon leen dégte li nga xam ne moom mooy information yi fi jot a dooleeku toftal lañ ci yeneen xibaar yi nga xam ne am na fi ginnaaw coronavirus ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp mesures yi nga xam ne moom na leen ministère de la santé di digal ngir mucc ci feebar bi di coronavirus ndax ñëpp xam ne coronavirus feebar la boo xam ne dafay lore continue leen di topp limametti.com information yi ndax information bi limametti.com la bu leen fàtte cloche de a permettre ngeen mën a ma leen di jox rendez nag beneen yoon ci bi limametti point com ak yeneen information